di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi suñu sëriñ suñu kilifa di Mawlana Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour xalif général de Tijane ñu ngi koy jiital ci nuyoo bi moom ak i rakkam toftal ca suñu sëriñ suñu maam suñu xarit Cheikh Seydi Ahmad Tijani si al Maktoum ak i rakkam ba ci sëriñ Abdul Aziz si al amin seydi Aboubacar si Mansour ñu gën ko xam ci sëriñ Mbay si Mansour seydi Ahmed sëriñ seydi Ahmed si bu seydi Aboubacar si nekk ca Riceer di wàcc ba ci xaaji Malick si Maodo bu suñu doomu sëriñ di suñu sëriñ cheikh cheikh alxaaji abdul aziz si dabbaax malik ak i rakkam sëriñ bay abdul aziz ak seydi mouhamadul mansour ak seeni rakk ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu mbooleem muqaddam yi aju ci cheikh seydi ahmad tijaani ak fuñ mën a nekk muy kawlax suñu kër bay alxaaji ibrahim ñas wala suñu maam maam abdullahi ñas ak ñu waa kër baay alxaaji Mouhamad Khalifa Niass ba ca waa cene ba Medina Gunaas bàyyi wuñ kenn ndax tariqa bi boo nee Cheikh Sidi Ahmada Tidiane rek képp ko aju ci Cheikh Sidi Ahmada Tidiane daal ñu ngi lay nuyu di la ziyaar waaye waxtaan bi nag xas ñu ngi koy def waa eh, ëttu Maodo ñu ngi leen di nuyu ñoom waa ëttu Maodo seen sit mooy ëttu Maodo rek fa tabaarakallaahu ñoom lañu ñu seqal waxtaan wi di ci waxtaan ak ñoom waaye di ci waxtaan ak àddina bépp rek ci jëmm joo xam ne jenn jëmm la waaye nation la mu di Maulana Cheikh Seydi Hadj malik ibnu Ousmane alayhi ridal Malick bu ma nee benn jëmm la mooy Seydi Hadj Malick la tudd bu ma nee nation la ay jëfam moo ko yóbbu ci mu nekk nation maa ngi ko tibbee ci alquran ndax suñu borom subhanahu wa taala moo wax ni inna ibrahima kaana ummatan qaanitan lillahi xanifan walam yaku min al mushrikina shaakiran li an'umi ijtabaahu wa hadaahu ila siraatin mustaqim mu ne maam ibrahima alayhi salaatu wasalaam jëmm la nit la benn jëmm la waaye nation la ñu ne ko lu tax mu ne dafa taxawoon temm ci samay santaane di ko def kaana ummatan umma mooy nation mu ne waaye xaanitan taxaw temm na ci li ma ko sant nga déggee ci ne nit bu amee taxawaay bi war rek nation lay taxaw jëmmi nation la yor moo tax mu ne xaanitan lillaahi dafa taxaw temm ci li ma ko sant di ko def xaniifan muy ku ommatu nag ci la ma ko sant mooy ku nangu ci li ma ko sant walam yaku minal mushrikin musta bokk moom maam ibrahima alayhi salaatu wasalaam mosul bokk ci ñi may bokkaale shaakiran ku ma daan sant la li an umi ci xéewal yi ma ko defal te xéewal nag ba ca jiitu mooy nekkub yonent mu yàlla ne nag ci yooyu nga xam ne moom la dajale ci jëmmam ji ca laa sukkandiku man yàlla it ba ijtabaahu ca laa ko tànnee wa jubal ko ila siraatil mustaqim jëmee ko ci yoon wi ne coow jëm si ci man suñu borom man seen borom kon yàlla boo amee taxawaay bi mu la sant taxaw ca nam la ko sante jëmmi nation ngay yor moo taxit mu joxoñaat nit ne ko inni jaa'iluka fil ardi xalifatan li suuf di rëy rëy rëy yow nit yaa ma wutu ci kaw suuf Seydil Xaaji Malik nag teel a xam loolu jàppe boppam kenn waaye jàppe boppam ku représenté yàlla ci kaw suuf te ku jàppee sa bopp nag ku représenté yàlla ci kaw suuf war ngaa am nooy doxe war ngaa am nooy waxe war ngaa am noo mel Seydil Xaaji Malik xool point yi nga xam ne ku ko incarné nekkal nekk kuutaayal yàlla ci kaw suuf Seydi El Hadji fexe ba notte point yooyu incarné ko di ko doxe di ko waxe di ko jëfe yàlla di ca sukkandiku di ko tànn ba teg ko tey fi mu ko teg moo tax ñu fas yéene seq ak ëttu Maodo waxtaan wi seppi kenn ci muqaddamu Cheikh Seydi Ahmada Tidiane yi seppi kenn ci xalifaam yi kooku la ñuy wooyee Cheikh Seydi El Hadji Malick ni ñu ko waxee ci moom nag noonu lañ ko mën a waxee ci mboolem muqaddam yi ma fi tudd yëpp te aju ci Cheikh Seydi Ahmad Tidiane waaye tey nag dañoo tàmm tàmm ak taamu benn jëmm bu ñuy wooye Cheikh Seydi El Hadji Malick waaye noonu lañ ko mënee ci jëmm ju ñuy wax maam Abdoulahi Niass noonu lañ ko mënee ci jëmm ju ñuy wax Baye Khalifa ñas noonu lañ ko mënee ci jëmm ju ñuy wax Cheikh al Islam El Hadji Ibrahim Niass noonu lañ ko mënee ci jëmm ju ñuy wax Thierno Mohamed Saïdou Thierno Ahmed Baro. góor gi amari ndaak ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne muqaddam lañ ci tariqa bi noonu lañ ko mënee ci Cheikh Sukayri noonu lañ ko mënee ci Aliou Harazim baraada noonu lañ ko mënee ci Cheikh Mohamed Al Ghali noonu lañ ko mënee ci Cheikh Al Hadj Omar Al Fouti waaye nag lépp dañ dañuy seppi kenn rek tànn ko mu représenté ñi ci des ñëpp kooku ñu seppi tey tànn ko nag moo di Seydal Hadji Malick kuy Seydal Hadji Malick ak Seydi El Hadji Malick li mu am lu ko ko may Seydi El Hadji Malick danay faral di wax ni dëgg la mbaax ci loxol yàlla la nekk waaye am way jur yu baax na dana tax mbaax yomb la donte nag du dëgg dëgg dëgg cosaan waaye booy xool ci masalan tey booy xool yonent bu mu mën a doon soo koy càmbar bàyyi ba ko jur du nekk yéefar amul benn yonent boo xam ne baayam direct yéefar la foofu dinaa def benn entre parenthèse boo xam ne nit ñi dinañ ciy faral di juum muy maam Ibrahima alayhi salaatu wa mii ma ubbee waxtaan wi yonent yàlla Ibrahima alayhi salaatu wa moom ci jëmmi boppam baayam bi ko jur du yéefar ñu bari nag dañuy wax ni wa iz qaala li wa Ibrahimu li abihi azara ñu bari foog ne azara moo jur ibrahima déedéet Cheikh El Hadj Abdou Aziz boo demee ci tafsir yëpp wax nañ ne sax juru ko waaye nit ñi eh, seen gistu moo dul xóot Cheikh El Hadj Abdou Aziz wax nañu bés ni sëñ Babacar si bañ ko ko laajee daf leen ne ab yonant ka ko jur directement du nekk mukk yéefar moo tax maam Ibrahima aleyhi salaatu wa salaam mu ne leen tey jii su ma doon yónni Cheikh Tidiane mii walla Mansour mii. nga xam ne maa leen jur muy Serigne Mansour xalifa bi ak sëriñ Cheikh su ma leen doon yónni ci seen baay alaaji Mansour ne leen dem leen ci seen baay alaaji Mansour ngeen ne ko dinañ xam ne alaaji Mansour seen baay la Seydi Alaaji Mansour seen baay la waaye du baay ba leen jur maa ngi lay yónni ci sa baay Moustapha dina xam ne Moustapha baayam la waaye juru ko maa ngi lay yónni ci sa baay Moodu dina xam ne baayam Moodu baayam la waaye juru ko yàlla noonu la waxee ak maam Ibrahima moo tax lama ma ca jublu rek mooy e, kilifa gu baax dana tax a am doom ju baax am kilifa gu baax dana tax a am doom ju baax moo tax yonent bi doon wax ne tànnal leen seen njaboot yaay ju baax fukki at su ngeen ko gisul ngeen dolli ci fukki at loolu pour am doom ju baax a tax yàlla waxaat ko ci alquran wal baladu yaxruju nabaatuhu bi izni rabbi waaye xabu sax laa yaxruju illa nakida nee na suuf su nangu am tos mooy engrais bu nangu nga ji ci gerte gu baax mu ne dinga am meññeef mu baax waaye boo seetee jànj joor boo xam ne dafa wow kong dëgër këkk amul dara nga jël suul fa sa jiwu doo fa am tus loolu la yàlla wax kon nag li ma ci jublu moo di Seydal Xaaji Malik bokk na ci li participer ci lii mu am tey way jur yu baax ka ca jiitu mu ngi juddoo moom Seyd El Hadji ci ñaar ñu tedd di ay wëliyu ku ñuy wax maam Ousmane si mooy way juram wu góor ak ku ñuy wax Fawad Wele mooy way juram wu jigéen Wele la sant waaye turandoom moo santoon Wàdd Fatmata Wàdd mooy turandoom ñu jël sant turandoom ak sant boppam boole ci moo indi faawaad wele ji lii may waxit it Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh Malick moo ñu ko nettali ci siira bu mu doon def ci Seydal Hadji malik waxtaan wu mu ci doon def kon nag Seydal Hadji malik ñaar ñoo ñoo ko meññ muy maam Ousmane radiyallahu taala an ak maam Fawad Wele maam Ousmane nag duutoon Tiijaan loolu dana ñëw ca kanami waxtaan wa maam Ousmane xaadir la woon ci tarixa xaadir it ci la génn àddina yaayam nag di soxna faa bint faa wadd wele moom tiijaanatu la maanaam tiijaan bu jigéen la la ko ko may it mooy càmmeñam bu ñuy wax maam alfa maam alfahim la tudd waaye nit ñi ñoo koy dagg naan maam alfa alfahim ma yoro wele moo ko moo mooy càmmeñel faawaat di ñoo bokk ndey ak baay kooku le nag di faawaat di wele moo meññ Seydi El Hadji Malick ci ndeyam mooy ndeyam la tax ma wax na it nag euh, bu am way jur yu baax dana tax a baax mooy lii may nettali bi Seydi Hadji Malick juddoo comme te ñuy tënk waxtaan wi rek nit it boo koy wax foog nga wax cosaanam fi mu jógee looloo tax muy nil répétition fekk du répétition bëgg mu leer ci boppi nit ñi la Seydi El malik moomu nag yàlla def na faawaad wele mooy yaayam faawaad wele nag la ko ko may mu am Seydi El malik la am mu may Seydi El Hadji mooy maam alfa soxna si muy faawaad wele am na ñaari borom kër ñu génn àddina moo jur moom faawaat wele moo jur fanta ñang soxna fanta ñang moo jurit góor gi ab du booli faal ñaari doom yooyu kii ci sëyam bu njëkk la ko am kii ci sëyub ñaareelam ñoom ñaar ñëpp ñu génn àddina soxna si nag dogu woon ne dootul am boroom kër day toog rek jaamu yàlla noonu sax na ca lu yàgg ba maam Ousmane jógee siin di dem gànnaar pour uti fa ay téere yum déggoon ne am na fa ci ngay déggee ne Seydi Hadji Malick mënta ñàkk xam-xam ndax ñi ko mel ñi ñëpp xam-xam moo leen boole lu jiitu nag maam Ousmane di ñëw maam Fawade maam Alfahim ma yoro wele di nijaayu Seydi El Hadji Malick bokk ak yaayam ndey ak baay déggoon ne Cheikh Al Hadji Omar al Fuuti yu mu ngi fuuta mu ne na dem nag ziyaare ji ko ba ñuy dem délégation lañ def kenn ku nekk génnee yóbbal ba nga am ñu dajale ko teg ko ci loxol maam Alpha comme maam Alpha doon njiital yoon wa moo ca magoon moo doon njiital yoon wa ñu jël yépp teg ko ci loxoom ba muy dem nag soxna su baax sii di suñu maam Fawade Wele génnee fukki sër sëru dënk booba loola mooy valeur mooy mën nañu wax tey ne mooy or ndax booba ku am sëru dënk rek am nga or mu génne ci fukk yu am valeur jox ko càmmeñam boobu ñuy wax maam Alpha ne ko soo demee nga joxal ma ko góor gu baax googu may dégg muy Cheikh El Hadj Omar al Fouti yi nga ne ko ah maa ko ko ziyaare na may ñaanal yàlla ma am nitu yàlla bu baax kon loo ci déggee jigéen war naa góorlu ba participer ci mbaaxug doomam ci tënk maam Alpha ànd ak ay nit dem siin jóge siin euh, jóge waalo dem ca fuuta fekki fa cheikhu umar ba demee dafa fekk cheikhu umar tëju nekk ci xalwa ba ñuy dem nag ci yoon wi seen bagage yi bari maamal fa ne ah bagage yi de bari na te diisal nañu waaye comme kii sama jigéen la te yóbbal yi ma joxoon naa ci jël benn sër jaay ko jënd ci mbaam mu jël ci benn sër jaay ko jënd ci mbaam jël bagaas yee yëpp nag sëf ko mbaam mi bañ demee ba yegg fuuta ndeke Cheikh mar yàlla xamal na ko ko ne ñu ngi ñëw Cheikh El Hadj wax bëkk néegam yi ne leen maa ngi ci xalwa am na ñuy jóge ca waalo di ñëw bu ñu ñëwee na ngeen leen xamal ne dama nekk xalwa mënuma leen recevoir ñoom ñëpp waaye danaa recevoir ka ca tudd alfa alfa alfahim ka ko ca tudd danaa ko recevoir wax ak moom moom bu génnee wax ak ñii ci des ndax dama nekk ci xalwa te bëgguma leen neenal ndax xalwa laajul wax ju bari bañ ñëwee nuyoo rek bëkk néeg yi gàttandu leen ne leen ah góor gi de noon na yëg na ne yéen a ngi ñëw loolu mooy kiraama bi njëkk yëg na ne yéen a ngi ñëw waaye dafa nekk ci xalwa nee na ngeen may ko kenn la ci mën a recevoir mooy ki tudd alpha mu wax ak dana wax ak moom moom dana wax ak yéen ndax ci xalwa la nekk ñu nangul ko ko maam alpha moo dugg ca biir baytu xalwa cheikh alxaaji omar fekk fa cheikh alxaaji omar waxtaan ak moom ci anam yu baree baree bare loo xam ne xajul ci émission benn émission waxtaan ak moom lu bari ay secret yu bari dënka ma Cheikh Omar dënk ko wax ko la mu war a wax ñi mu àndal waaye wax ko nag secret moom diggante maam alfa ak moom Cheikh Al Omar ak jarbaatub maam Alpha bi war a juddu te mayeeguñ yaayam nga xam ne Seydi Hadj ku ñu waajal la moo tax may sa war a waxtaan ci moom yàlla dogal bi mu waxtaaneek moom ba noppi Cheikh Al Omar may maam alfa tariqa bi ba mu ko mayee tariqa bi jox ko ay ndënkaane génnee ijaaza itlaaq déglu li may ne ñépp déglu li may wax ijaaza itlaaq jox maam alfa ne ko maam alfa ne ko lii nag mu ne ko du du yow de am na sab jerbaat boo xam ne juddoogul yaayam a nga ca kër ga moo la jox fukki sër nga indaaleel ma waaw lu tax nga jaay sama benn sër bi sax kon bu mbaam mi dem maa ko moom ndax sër ba nga jaay nga jëndee mbaam te sër boobu sa jigéen bi moo la ko joxoon fukk la woon juróom-ñeent ci des fukkeel bi nga jaay jëndee ko mbaam kon mbaam mi maa ko moom bàyyi fi mbaam mi bu mu dem sa jigéen boobu nag jox la fukki sër yooyu ne la nag ma ko jox ma ñaanal ko mu am nitu yàlla dana am genn góor goo xam ne mu ngay jóge ca ca jolof tudd usmaan si dana jaar ca dëkk ba muy muy waalo fële ca gaaya mu ne ko dana fa jaar bés sàngam waxtu sàngam taxoo ko jóg benn téere lay uti ca gànnaar waaye téere boobu muy uti bu mu ko def lay noo mën a def na ko may sa jigéen bi bu la rëcc mukk noo mën a def lum gantal gantal gantal fexeel ba naxanteek moom ba may ko sa jigéen bi soo ko ko mayee dana ca am benn doom doom bu góor lay doon danañ ko tuddee sëriñam ba koy jàngal alquran Malick Fawade wele lay tudd su juddoo ijaaza bii ma la jox moo ko moom kon xam nga ki ijaazaal tem ci waxin ñu baal ma yaayam sax mayee guñ ko mu dugg néegu sëy kon kooka dara la mu ne ko ijaaza bii moo ko moom yemu ca mu bind ismulaahil azamil kabir bi nga xam ne moo teree nelaw ñëpp bind ko ci këyit lem ko moom Cheikh Al Hadj ne ko kii bu ci sa bët tegee waxuma la yow waaye loo amati sax du baax ker bu bu màggee ba dal alquran ba mokkal alquran ba wàcc alquran ba jàng xam-xam bés ba muy dal xam-xam awwalu ma yajibu alal mukallafi ca laxdari bés bi nga ko koy dalal te yow nijaayam mi yaa ko koy dalal bés boobu ca nga koy may tariqa bi ca nga koy jox ijaaza itlaaq bi ca nga koy jox nag ismulahil azamil kabir bii ne maam alfa lii laa lay dënk te soo demee sa jigéen boobu na ko toppatoo ku baax la te li ma la wax nag na ko bàyyi xel bu baax a baax bul fekk bul fexe mukk ba góor googu tudd usmaan rëcc ko maam alfa génn waxtaan ak mbooloo ma la leen Cheikh Oumar wax la aju ca moom ca ñoom mbooloo mam àndaloon la ca des nag mu denc ko ci xolam ñibbisi wax nañ ne dafa ñibbi si matul fukki fan maam Ousmane ñëw ne jalañ ci biir ci dëkk bi am ñu ne juróom benn weer lañ ci teg maam alfa lu ci mën a am rek siira moo mel noonu ñii dañuy wax lii ñii wax la le am ñu ne lu ci mën a am daal diir ba yàggut ca la maam Ousmane jógee siin di dem gànnaar pour uti téere boobu benn téere xam-xam ci la nag jaar gaaya dégg ne maam us maam alfa boroom xam-xam la na jaar ci moom seet ndax am na téere bi balaa moo jàll gànnaar ndax waalo gànnaar benn lañ bam jaaree ci moom di seet ndax maam alfa am na téere bi maam alfa profitoo ci nag waxtaan ak moom lan la maam alfa wax ak moom daf ko ni a ah, am na sa jigéen am na sa jigéen boo xam ni mu ngi fii ñu koy wax ci la nga maam Alpha biñ ci tegee tuuti noonu rek ñii ne fukki fan la ñiine ne juróom-benn weer la ñiine ñetti weer la ci la maam Ousmane jógee ca Jolof di dem Mauritanie pour uti téere boobu bi mu yegsee gaaya mu ne na jàdd ci borom xam-xam bu ñuy wax maam alfa ñu ne ko boo ko laajee téere bi xëy na mu am ko su ko amut nga door a jàll gànnaar lii mooy sabab bi maam Ousmane jaar fa bi mu fa jaaree fekk maam alfa ca daara ja di jàngale mu ñëw fekk ko fa waxtaan ak moom waxtaanu boroom xam-xam ba ñu waxtaanee ba waxtaan wi daaneel mu ne laaj ko téere bi maam Alfa ne ko ah téere bi de dama koy dégg rek waaye dégg naa am na gànnaar diw sàngam am na ko gànnaar dama mu ne ko nag looloo ma yëkkati kon ah damay fanaan rek bu bër setee ma wéy jàll gànnaar pour uti téere bi maam Alfa ne ko ah su ma sañoon de ñu dimbalante ci daara ji waxtaan waxtaanu ndongol daara balaa ngay dem nga may ma ko lu mu gàtt gàtt daal may ma une semaine ma maag yow ñu waxtaan fekk booba mu ngi koy naxtaan. pour la Cheikh Al Hadj waxoon ne ko bul fexe mukk mu rëcc la may ko sa jigéen bi bi mu amee ñetti fan nag ci kër gi saa bu xëyee nekk ak moom ci daara ji saa bu xëyee nekk ak moom ci daara ji saa xëyee nekk ak moom ci daara ji ba yàgg la ko proposé ne ko waaw man de sama jigéen a ngi fii te dama la ko bëggoon may ku baax la ku yiw la ah man de su ma sañoon nii ma gisee yi nga yiw gis nga baax su ma sañoon sama jigéen bii daal nga denc ko nee na góor gi ne ko ah man ñaarama dab maa nga bàyyi soxna jolof ba ca topp dama tàggoo pour uti xam-xam ba ca des mooy doxandéem la yoruma lu ma lu ma lu ma yoree soxna mu ne ko loolu yépp du ngant ngant li daal mooy nga ne ma waaw rek soo nee déet mënuma ca dara waaye soo nee waaw loola yëpp nekkatul ngant mën nañ la koo may góor gi ne ko kon may ma ma xalaat ci fii ak ñaari fan wala ñetti fan kon semaine ba mu ngi commencé di lekku ba mu toogee ba xalaat ci ne ko ah bu fekkee ne day nii ñu ko waxee te bu ma wuññeekoo koo it dem ñibbi jolof du indi benn inconvénient ci diggante bi mu ne ko loolu yëpp du inconvénient fekk mu ngay sàmm waxu Cheikh Al Hadj bi cala la accepté góor gi nangu maam Ousmane nangu ñu may ko fa awaad mu nekk ñetteeli boroom kër ndax wax naa leen boroom këram bu njëkk dafa faatu moo jur Fanta Ñang ñaareelu boroom këram faatu moo jur Abdou Boli Fall kii di ñetteeli boroom këram tudd maam Ousmane si ñu may ko ko mu nekk fa ab diir weer ya am na ci ay werante waaye yooyu boo nee ab diir rek tënk na la continuer dem gànnaar ut téere ba mu doon ba am ko wëññeekuwaat ñëwaat nekkaat jolof ñii ne ne ñetti weer la fa defaat nekkaat astafirullah gaaya ñii ne ne ñetti weer la ko defaat ñii ne na ëpp na ko dal di tàggoone nag mu ngay dem siin Demba na bii tey su demee siin nag def fa ab diir waxtaan aki i mbokkam wan leen ne bàyyi na fii soxna seet nag liaison bi nu mu koy doxalee ci ñaari diggante Jolof ak Gaaya am na ci loo xam ne nag histoire kenn du ko nettali ba muy tàggoo di dem nag ba dara desu lu dul xëy suba dem siin Demba na ca la ko góor gi woo muy maam Alpha di nijaayu séedi Hadj Malick ne ko ah sama jigéen de dafa mel ni yaramam dafa xaw a soppeeku waaw yaa ngi dem su fekkee yàgg nga fa yàggaay boo xam ni mucc na sa ginnaaw nu ñuy def booba Seydi Hadj Malick ñaari weer la am ci biiru yaayam lim niroog yonent bi dafa bari mu mu ne ko ah, su fekkee jëg e, e, fekk na ma jolof wala may dund wala ma génn àddina wala fekkuma fi nangeen ko tuddee Thierno Ousmane Thierno e, malik Sow su dee jigéen nag ngeen tuddeel ma ko sama yaay waaye su dee góor tuddeelal ma ko Thierno malik Sow sëriñ daara la woon bu doon jàngale daara góor ga dem histoire am ba góor ga ñàkk ci bakkanam ci gàttal daal muy maamu muy bàyyu Seydi Hadji Malick di maam Ousmane loola moom duma ca dugg ndax dama koy aj rek ca la yonent bi wax ne wa imsaakun euh, euh, euh, wa imsaakun amma shajara baynahum ci diggante saxaaba yi li ciy xew mu ne téye leen ci seen jàmbur seen yoon newu ci ndax kenn ku nekk ci ñoom yàlla digg na ko àjjana te yow miy wax yàlla digagu la dara kon nag waaw wa imsaakun amma shajara baynahum loola lay indiwaat rek teg ko fii ndax diggante seeni mbokk la ñoomi neen muy waa maam Ousmane ak i mbokkam ba mu demee daal am na lu xew ba góor ga ca la ñàkk bakkanam bi ñàkkee bakkanam boobu Seydi Hadji Malick mu ngi am ñaari weer ci biir yaayam ba juddoo damay tënk rek ba mu juddoo nag la góor ga bàttale woon far yàlla dogal muy góor te Cheikh Omar waxoon na ko ko Cheikh Omar noonu na ko boo ko mayee sa jigéen bi su ju dana ci am doom bu góor na ko tuddee Malick Sow Thierno Malick Sow lay tudd wax ko lépp te booba nee naa la yaayam sax mayeeguñ ko ba juddoo nag ñu tuddee ko Malick Sow Thierno Malick Sow moomu di sëriñ daara moo jàngalit Seydi El Hadji Malick ñu tuddee ko ko duppee ko tur wa Seydi El Hadji Malick ci diggante yaayam ak nijaayam maam alfa maam Alpha Himma Yoro Wele ak yaayam Fawad Wele ci ñoom ñaar seen diggante la gémmee ba ci tënk bi mu amee bi mu gimmee rek ñetti at ñeenti at lañ ko yóbbu ca daara ja Seydi Hadji Malick werante moo ci am ñii ne nañ juróom-ñeenti at la am mokkal alquran ñii ne nañ fukki at waaye weesuwu ko di kàng fóole